Luxury Ham, Héritage Couture, Africa Supermarket, Bazar Shop, Bean Seduction, Rama Restaurant vous offre votre série Yeg Yeg, Crise Bean Seduction. La séduction est un art Bean Seduction Venez vous faire plaisir par et pour la séduction. Oui, articles divers de beauté, d'élégance et de fragrance. Une boutique visitée et approuvée par les plus grandes stars. Se sentir Silaction. Vivre Silaction. Et séduire Silaction. Disease be in Silaction. Adresse South Hamilton, Columbus, Ohio. 43 232. Adresse nette www.beanselection.com African Supermarket, produits divers et frais. Retrouvez-vous en Afrique par des voies culinaires proposées par African Supermarket. Oui, mesdames et messieurs, pour vos besoins en cuisine et produits africains rares. Une seule adresse vous est proposée en fiabilité et en traçabilité. African Supermarket. Oui, Retrouvez-vous en Afrique de l'Ouest depuis les États-Unis d'Amérique en faisant confiance à une seule adresse, African Supermarket, située au East Livingston Avenue Columbus, Téléphone 614 237 au Africa Supermarket, tout ce dont la diaspora a besoin, ça se à African Supermarket. Incroyable La destination de Luxury Home est maintenant plus envahie que jamais. Les rénovateurs d'espace, les amoureux de mobilier de maison et de bureaux, les passionnés de décoration d'intérieur ont tous choisi Luxury Home comme l'endroit idéal pour trouver des articles qui les ressemblent. Vous voulez une chambre à coucher confortable et conviviale où vous passerez du bon temps avec votre bien-aimé? Luxury Home est la destination qu'il vous faut. Nos mobiliers de maison et de bureau ou vous nous USA Bazar Shop. Voici votre boutique qui fait la différence dans différents domaines, mesdames et messieurs. Une boutique pour votre bien-être. Il fallait y penser et c'est pour vous servir en ce sens que USA Bazar Shop s'est basé à Dakar au Sénégal pour vous servir et servir l'Afrique avec des produits à des prix imbattables un service de qualité. USA pour vos colis d'urgence GP Sénégal USA pour vos produits d'hygiène, de beauté, de santé, pour la Dakar Shop, situé à Norfoire, Dakar Sénégal, à côté de la Brioche Dorée. Recevez et envoyez, mesdames et messieurs, vos colis en 24 heures. Efficacité, sécurité, traçabilité, c'est USA Bazar Shop. Numéro de téléphone 78 449 USA Bazar Shop, the best. xel bi jaxasoo rek. gis nga tey ci ndox lañ ko taamu waaye ci nit la gëne maa la woo ku la la maam wax la doo tey rek. ok xam nga lan lay doyee Bachir ndey Bachir xam naa ne ay complice te déggal na la wax ci mu bàyyi uli mu muy traité de tous les noms lu ñaaw li la mu def ko ci dara bi doomu jàmbur la te loolu yow ku la ko waxoon du la neex waxal rek wax ci mu bàyyi ko bëgg na ko te xale la bàjjan lii mënoo ma ko woon wax téléphone ma tontu la li ma lay tontu après mu jeex mais il nga yàq sama liggéey bi déplacé ma nga ñëw ba fii nga may wax ay waxu Bachir Oly waaye nda yeboo magum jëm am fullaam ak faydam woola ku la ne lii neexuma jàkkaarloo bi li ma lay wax est-ce que bëgg naa la ko wax téléphone lii moo ma neex nijaay sa réputation mi ngi yàqu ci koñ bi hmm. nijaay yow bàyyiwoo piscine paata bàyyiwoo dibiteri bàyyiwoo fast food bàyyiwoo xal parental bu juddu ci koñ bi ànd nga ak moom te da ñëw fii pour ñëw defar kër gi mais yow dafa ko toog de seet naa ba seet na da ngay yàq man nag du ma génn sama morom bi fu ma génn ñu topp ma sa nijaay lii sa nijaay laa fu nañu la fay gis ngay sol sot sol caleçon di sangu ay piscine. yow yabaate nga de. diggante Bachir ak Ouli mënoo cee noppalu boo bëggee noppalu dañ ciy génn gis nga Bachir ni muy tooñee Ouli noonu la Ouli di tooñee Bachir suñ la waxatee nga ne waaw wax naa après mu jeex. nday gis nga Bachir bu xoolee ba Uli rëcc ko dina ko tëkk Uli jabar la de te it xamal na ma ni bu gisee jëkkër day sëy Uli ñaata jëkkër la gis ci réew mi Uli ñaata nit ñoo ko fi bëgg ku ne bëgg na ko fi sëyiwul parce que bëggu leen Bachir la bëgg comme ni ko Bachir bëggee bàjjen noppalu. léegi dangay tester sa gàllaaj wala. yow wóolu nga sa bopp de. nekkal añ ma toog añ benn yoon ba pare soog a dem egg sama liggéey. eh tax tax taxul ngay ban añ pare ceeb bi potu ceeb la donc xajoo ci benn pot laa sóor te sama bii bii laa ko dugal siis na nag ah siisuma siisuma mooy xanaa du ngeen lekk seen kër duñ toog ah xajoo ci nga may sax zooge ku ma gi togg bon xaw ma gis nga Nabou yow da ngaa réew te xamoo sa bopp xamoo tamit sa moroom yow da ngaa réew ba xamoo fu sa sar bi bënne li ma bëgg nga def ko sa bopp bi mooy boo amee koy lijjanti nga lijjanti ci sa moroom wala nga dem lijjanti sa yaay moo gën a sikk ñépp man duma sa moroom sa ndijaay laa su may nekk ci xale yi di dem piscine party te am na yoo bàyyi sama soir salsa yi may dem kamba nag doo ko ci boole ak yeneen ak yeneen maa tey ku ma neex laay jàpp yow bon nga ñàkk nga kersa ak say xef yu rëy yaa may dégg yow ku toroxlu nga ah. na njëkk tey na mujj tey ngay am su ñëw jàkkaarloog man di am loo may wax walla loo may digal man du ma sa morom dégg nga ma est que. yaay soo demee ba yow tax yow tàmmatoo sax wéetaay toog yow sël sax nga dem ànd ak sa moroom mais yow parentali ci koñ bi ñëpp ñëpp koo wax ah, yow la ñuy waxtaanee grand place bu ñaari nit toog yow la ñuy waxtaanee loolu rafetul. sama yoon newul ci loolu. rafetul def naa sama benn moroom ñaari màgget ci kër duma ko nangu xale bu ndaw laay àndal mu doon benn màgget ak benn xale te yow ñàkk nga kersa comme xaj bu gumba ah. yow sa jikko safuma ak sa yi nga rëdd sa kanam gi nga mel ni kuy simb nii waxalu la neex waaye du tere dëgg gi nga xamante ne moo nekk ci man du tey ma wax la ko ah dëgg yoo may wax waaw dafa am dëgg yoo xamante ne jot nañu wax la ko nijaay munoo nekk ci koñ bi ah man comprendre tuma sax doo comprendre doo comprendre sa gàttaay yow doo comprendre dara nga mel ni ku simbi woon ni jógal jógal nga génn fii jox ma cinquante mille foofu. cinquante mille lan. sama lekku baal lekk bandi ci lan. 300000. kii ndey mi lu ko dal leen 300000. lu tax amoo ngor ci xaalis xaalis ak góor mën ngaa wat ni yow doo ko bokk. waaw ah, loolu sama jikko la xam nga sama jikko man sa mbàjjan du waxantu nee na Bachir yónnee na la 300000 jox ma sama lekk. Hmm, yow kañ ko dof yow man nag Bachir kañ la gëj a tegoo loxo. <laughs> non 300000. ah nday nag yéene nga ma de. li ma lay laaj li ma laaj nag lebu ma la ko ñaanu ma la ko force la ndax sama alalu mag la. yow nday dama maa fajar pour saaga ma nday wala lan la. sama bàjjen du waxantu nee na Bachir yónnee na la trois cent mille. ah bàjjen moom bariwul. Hmm? Bachir de sama teganteeg moom loxo du romb cent mille. waa c'est vrai loolu moom dëgg la Oli moom wax dëgg yàlla da ko bëgg demul dikkul et aussi lu ko Bachir may bàjjen yow da commerce de ndax sa wàll day ñëw. 300000 waaw. sa diggante yàlla. waaw yow. eh Bachir woo na ma kay. xam naa loolu. ma ramassé ko. yaa ma dàq duur maa tey waaw segam yow mi góor Bachir yaa mën a woo sa yaay di ma sosal di nga xam ne maa dàq sol dàq laa duur te xoolal yow gisagoo dara bala ngay xam ne gisagoo dara waaw ta sa wax la ne fii nga may fekk du ma du ma la déglu sax wax wax ko lu ma saf raccroché ko one defante waaw defantee ñu noonu nda yow waxoo yow lu yu mel ne bu ma amee doo woo ni ma sama bàjjan wax naag Bachir ma xam ne may comporté woo Bachir lu muy def ñu bloqué yow man dof laa de waaye yaa ngi def ñëpp waaye xam nga man ni may réagir sama mere Bachir yow nday wol ma Bachir. waaw ah, soo ko xam ne Bachir sama mag la Bachir moo la filtré nii. gis nga sa kanam maa ngi ko dimbali kuy waajalee dina faatu yow composé ma numéro kii wol ma ko hmm. yow kay. <laughs> dangaa juum sama yoon nekku ci comme yow dangaa mën a defante yow nee nga bal bu dem beneen dellusi si. ci nday wol ma Bachir. damay dem tournage xaw ma temps. wuy ba cinquante cinquante lañ koy def soixante quinze vingt cinq bëggoo wa ndey da ngaa ci nii yow def ma lay xaar soriwut xam nga yàgg papa chaque jour ngeen xuloo te bu ngeen xuloo mën ngeen ci yaakaar baax na kii tamit ku wax lii wax la de jël sa téléphone bi ñu waxtaanee lépp looy mer ana góor ak defante xamoo yee la yow. Bachir maa ngi lay woo muy sonné xaw ma dafa da nga occupé xaw ma nag maa bloqué ñaari baat laa lay wax sama vocal boo ko jotee bu mu egg te rappelé woow ma gis nga boo ko deful sama diggante ak yow moom amoon na fi la ñuy wax waaye nekkatul lu leer laa la wax ba nga xam ne danga may wax pour may ma xaalis mënu nga maa bañ a attaqué waaw waaye xam naroo ko woon soo ko naroon doomu ma indil histoire danga nay sa loxo bi daggul fii daggul fii fii la dagg man wax. Bachir moom kër wuyu ma man bul ma topp gis nga nit boo ànd ak moom bëgg seen relation tollu fenn fii danga koy comprendre yoo xam nga lu ma mën a am ci àddina yaa ma gënal dama meroon rek moo tax wuyu ma woo ma ñu waxtaan ci njekk rek dégg nga lépp ci njekk ñëwoon tey pour waxtaan ak yow. Ah, dëgg la man ak Ndeye depuis bi ñu nekk xale lañ commencé di ànd. te boobu tey dara ñaaw Uli tey bu demee ba xam Ndeye man maa ko présenté kon tey bu ma gisee loo xamante ni nii dafay njuuj njaaj sama xel mi faaw ma ñëw wax ak yow. mu mel ni Ndeye dafa jël Uli. sës ko loolu ci papa affaire bi nag jaaxal na trop ma ni woon li jiixi jaaxal sama xel naa ñëw waxtaan ci yow parce que euh, Oli approché na trop papa te loolu nag loo xamante ne lu ma neex gis nga yow seytaane naa fekk rek

mais fii ay kilifaa fi ne lii nga sol mooy lan. ci lan yow sa col gu eh, bon bii sol. ak sa yii nii. Eh, xam nga lan laa lay bëgg a xamal gis nga man sa yëpp ñàkk fayda ak yëfu matadi yi nekk ma ci. maa tay tayoo ko sa jikko la sa bëtt sulaar yi xam nga lan laa lay bëgg a xamal man sa yi nekk ma ci ek que ça soit la première et la dernière fois nga fekk ma ci salle bi ma toog nga may làmbatu ñàkk nga fayda trop sa bëtt sulaar yi. yow ku la làmb xanaa ngaa bëgg gi mel ni doomu konkorong yow béppeeku nga ngay mel ni yére bu gajaf yére bu nu xooj ci mpóot ay fande génne ko ngay nuróol ak sa baqata yu bari nga mel ni ku ñuluk baqata fu nu la fekk doom ak soj du ngeen tàqoo loolu sëy de yaaw li muy xeeñ bi woowu ko yaakaar naa ni man maa la gën a xam Oli parce que ñooy ànd mais Oli warul am accès ci papa ba di commencer yéen jigéen lu tax ngeen tax ñaar ñu leen koo gis ah am affinité daal ngeen di nga nday ak doom lañu leen bokk jur bu ma dog yaa ngi mel ni nag ku toog ci der di jëw yàpp yow man ragal naa la ah. li may wax mënuloo ko gëm ndax au lieu ni mu mel ak sa doom Basiir moo tax. loolu sa yoon nekku ci li ngay wax yëpp laajuma la ko xam nga lan laa bëgg eh nga génn sama kër ci biti na gaaw li ngay wax laajuma la ko. ba noonu nga ko gisee baax na.